problème d'insertion euh, dans le milieu professionnel. waaw loolu euh, raison yi bëri nañu euh, raison bi ci gën a banal bi ñuy wax ñu ne bu amee ay diplômés sans emploi Sénégal c'est parce que employé sans diplôme aussi dafa exister au Sénégal mooy clientélisme bi ñu la doon wax léegi avec la corruption bi ci am. beneen bi lan moo tax moo am ay problème insertion des diplômés te c'était l'objet du point de presse que nous avions voulu que nous avions tenu à l'université mardi bi passé mooy les examens et concours qui donnent accès à certaines professions comme magistrats avocats mm -hmm. ne sont pas régulièrement organisés et c'était l'objet de notre présence aux assises de la justice pour interpeller l'opinion sur et également le président de la République et les autorités sur le fait que par exemple pour le barreau ma maanaam le concours pour pour être avocat la dernière session du barreau remonte à donc lu lu faculté de droit bu université di produire fan lay fan fan fan lañ fan lañ leen di ori fan leen di orienté et ce n'est pas seulement benn option boobu kese moo am booy xool regroupement bi ñun on n'est pas seulement à tirer sur recrutement fonction publique wala organisation de concours parce que yooyu benn ci buntu insertion yu jeunes yi am la mais par rapport ak échange bi ngeen doon am léegi nii par rapport à l'Assemblée nationale règlement intérieur bu beesam bi bi ñu wax baax na wala bi ñuy wax baaxul ñaar yëpp day prévoir la création euh, le recrutement d'assistants parlementaires ak le recrutement d'assistants parlementaires doo ko parmi les diplômés de la faculté de droit ou les diplômés de la faculté d'économie mmh. actuellement il y a quinze assistants parlementaires et qui ne sont même pas affectés à des députés mais qui sont affectés à des commissions alors qu'on sait que le travail parlementaire lu mu laaj ci ni nga war a outillé yow en tant que parlementaire te xam nga on ne demande pas à un député d' être instruit mu député mun nga bañ a jàng. donc bu ñu demee ba accepter que député mun na bañ a jàng war nañ mën a mettre la main à la patte pour que chaque député puisse avoir un assistant parlementaire à bu mm-hmm. koy dimbale ci activité parlementaire